Anyways.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 ndaw si nag nee ñu ma nga dëkk ca wetu prison bu rëbës lu toll ci fukki at nag am jàmm ak miinante gi mu miinante woon ak pénitentiaire yi taxoon nañu wóolu ko ba daawuñu ko contrôler fam bi nag li ñu ko accusé mooy da doon jaay benn détenu pla naka noonu ci la jëlee benn cornetu yamba daal di koy lakk ci pla ariko bim ko doon jaay <laughs> kay hmm, ma mbaa yàggu koo def ndaw si nag ci kanamu yoon lank na ba tëdd ci naaj bi ne mbir mi du moom setal ci boppam ba mu set wecc waaye procureur nag loolu convaincre ko de ndax mu ngi laaj ñu door ko juróom benn weeru kaso le 30 mars bi nag ci la ñuy xam fu wànnent di mu jekki gëtëm moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw korona la wax la xew ci lycée Seydina Limaamu Laay bu Géejawaay romb na doy waar police moo fa teg loxo benn élève élève benn étudiant ak benn tailleur fekkee leen ak yamba ay waay yéen ñu waroon leen fekkee ak kay ki bik di leen fekkee ak yamba li indi yëf yi nag mooy police dañoo jot information bu leen di xamal ne trafic bu mag moo am foofu noonu ca lycée Limamou Laye naka noonu ci la ñu defee descente ci biir lycée bi teg loxo ñetti nit benn élève benn étudiant ak benn tailleur muy SM Diop Béccu bu ak M Fall ñoom ñett ñooñu ñu teg loxo nag ñu ngi leen doon atte ci tribunal flagrant délit bu Pikine Guédiawaye élève bi di wuyoo ci beccu bu nag ci kanamu yoon nee na li ko indi woon ci lycée bi mooy dafa ñëwoon ngir réviser ay leçon naka noonu bi police duggee ci lycée bi ci la am ku sànnee ci ay tànkam yamba police bi mu gisee yamba bi ci wetu yaakaar ni moo ko moom ñu teg ko loxo bi di wuyoo ci turu SM Diop nag indi woon ci lycée bi doon def ay ay cours de renforcement police bañ ko fa fekkee moom mi teg ko loxo askay bii di wuyoo ci turu am faal nag ma ne ab tailleur ci biir école moom nee na li ko dugal ci lycée bi mooy daf fa doon jënd lu mu lekk bi ko fa police fekkee moom it teg ko loxo askay waaye nag représentant parquet bi nee na ak résultat yi am solo yi lycée Limaamu Laay di am yu ni mel daal du ko seetaan tax ba mu ngi sàkku ci ñoom ñett ñëpp ñu daal daan leen ñaari atu kaso wópp loolu waaye nag avocat élèves yi ak étudiant bi ñoom li leen jaaxal mooy benn sasa yamba naka la ko ñetti nit ma ne moom ma ne ko gone yi de dañuy séddoo sax benn mégo cigarette ba nag li mujj am mooy tailleur bi la ñu daan benn atu kaso étudiant bi ak élève bi ñu bàyyi leen ndax ñàkk am ci ñoom lu wóor tubaab di ko wax bénéfice di dut moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax kii tamit beneen étudiant la di wuyoo ci turu BND moom daal dafa ñaan yaayam quinze mille francs yaayam daal di lànk mu xaar ba yaayam génn mu haute essence sotti ko ci appartement bi yaayam defaroon ba mu mel ni panaal taal ko ba mu def doom kay waay waay waay kii réew te xamadi mbir mi mu ngi xewee ci cité gendarmerie ca Dalifort étudiant bi mu ngi am lu toll ci ñaar fukki at juddoo ca Espagne moom daal yaayam ji di wuyoo ci turu NAF la ñaan quinze mille francs yaa ji bañ mu jël essence sotti ko ci appartement yaayam taal ko mu lakk ba xam xam nga ni kii du yóbbu yaayam màkk de étudiant bi nag bañ ko yóbboo ci kanamu yoon nee li tax mu def lu ni mel nag dafa am problème mu bopp ma ne stay Sénégal de nii la moom daal da ngay def sa lu ne weŋ ñu ne dafa am problème mu bopp waaye bu njëkkoon de xale bu musaana am ñaar fukki at lu baayam mu gi ñàkk jom seen bàyyi seen nday leen di yor ba ñu am fanweeri at bëloo rek bëloo rek ñàkk jom mu doonoon seen xibaaru bës dig daje samedi ci yeneen xibaaru bës